asalaamaaleykum ami téléspectateur Kër Ndanane TV nee naa leen damay am mbégte contentement saa nekk rek di leen defal seen émission bi nga xam ne moom lañ laan mode tendance beauté su geen dégg mode tendance beauté nag dafa nekk émission boo xamante ne nii leen li ko tax a jug leen rek la muy maanaam fésal tailleur yi borom prêt à porter yi jaaykatu tissu yi jaaykatu dàll yi maanaam tailleur yi salon de coiffure yi góor jigéen mag ak ndaw ngeen di yëngatu ci mbirum sañse rek nee naa leen seet si leen ma woo leen ma ma ñëw defaral leen loo xamante ne macha allah tey nag dama nekk si fi nga xamante ne moom lañ naan Rufisque maa ngi ginnaaw pharmacie Astel côté Sonadis bi noonu ginnaaw pharmacie Astel tey dama ñëwoon seet si ñi nga xam ne moom mooy Kër Ndaanaan shop nee naa leen Kër Ndaanaan seen i benn la ci Sénégal ndax lan seen tenue de marque la ñuy jaay tenue de classe nee naa leen tenue de marque tenue de classe ñoom seen marque benn la muy marque italienne su ngeen ma xoolee li ma sañse nii kaw ba suuf nee naa leen pochette gis ngeen pochette bi nu mu taaroo rafet am classe robe fii lay xewee biir kër Ndanane shop léegi lenn la ñuy def sama caméraman daf may topp ñu dugg ci biir moo wan leen lu yéemu ci yàlla nee naa leen fi am na ay costume am na ay cravate am na ay ensemble grande dame ay robe grande dame ay combinaison cravate dàll lépp lu ngeen bëgg su ngeen ma toppee ci biir moo wan leen ko ngeen yéemu ci yàlla nag ay prix yu abordable nee naa leen prix yu abordable n'hésitez surtout pas ngeen ñëw xool fii macha allah du ngeen ko réccu caméraman topp ma ñu dem la plus belle comment vas-tu ça va ça va yaa ngi ci jàmm te yow laa seet si woon waa kër ndaanaan shop macha allah borom yu baax yi mhm. borom yëre yu nice yi mhm. gis nga li nga ma sañseel ni dinaa ah, leen comme ni ma ko waxee mbokk téléspectateurs yi tey dama seet si woon waa kër ndaanaan shop waa kër ndaanaan shop nee leen tout ce qui est tenue de marque tenue de classe nee leen costume di ngeen ko gis Euh, di ngeen fi gis ay ay ay chemise di fi gis ay lacoste di ngeen fi gis ay ensemble grande dame ay robe yu rafet bi ma sol nii macha allah ay dàll <laughs> pochette petite dame yi comme grande dame voilà <laughs> combinaison nee naa leen tout ce que vous voulez di ngeen ko trouver fii si boutique Kër Ndanaan shop tey nag tey moom émission bu ala daw mi lañ war a def ndax sañ see fi am ëpp na nee naa leen ak prix bu abordable bu leen ragal maa ko wax comme mode tendance la ñu wax te kër ndaanaan ku ne xam na ne ci tendance lay dox waaw mayewul dara loolu moom jël sama koy wax mayewul dara tout ce qui est chic mm, classe et rareté mm. surtout surtout ci rareté mm-hmm. voilà parce que yëre moom taamu naa ci bi gën a raar taamu naa ci bi gën a am qualité mm-hmm. donc fii rek lay xew maa la ko wax loolu may neex xam dama am yàlla def na ni dama am mbirum sañse dama ko bëgg kon nag dama naa nu mu amee classe rek Ah, da nga ko fàtte. ah kay gis nga liñ ah, la laal liñ la laal ci robe nii defu la ci vert ah, rouge. vraiment dafa tendance robe am nañ ay robe robe de soirée. Mhm. dañuy def euh, genre euh, ensemble super sans pour dame dañuy def aussi yaa ma gën a xam ay haut de classe en tenue décolleté. yooyu yëpp boo bëgg am na loolu yëpp da ngeen koy trouver léegi incha allah. donc ak Kër Ndanane TV comme ni ma leen ko wanee rek nee woon naa tey dama ñëw Kër Ndanane shop maa ngi woon biir Kër Ndanane shop fi nekk ba léegi nii sax jot nañ leen woon lépp lu fi nekk leen n'hésitez surtout pas di voyager jaratul ngeen di de marque tenue de classe nee naa leen fii la wulee ñaay Kër Ndanane Kër Ndanane shop lépp a ngi fi li leen wan nag lépp a ngi fi donc tey damay eh, daal di fas yéene dégg mi ko ki nga xamante ne moom mooy la gérante muy muy Mariane sama préférée macha allah ne maa ko bëggal sama bopp Mariane na nga def. maa ngi fi madame Diop maa ngi delloo ziar en tant que yow fii liggéey bi naka lay demee sa liggéey naka lay demee tu comme naka ngay jaayee sa njaay mi genre da koy def vente en ligne des fois clientèle mi ñuy ñëwee ak jaay bi naka lay demee pour nga expliquer ko ñi seetaan mën a comprendre. d'accord merci beaucoup euh, xanaa dina dalalaat rek ci mhm. émission bi vraiment ce fut un plaisir mhm. di leen recevoir fii nii ci ci boutique bi ngeen di génneel ma sama yëre yu yaañ mhm. ne jaay képp kuy jaay visibilité da koy soxla mhm, donc tey jii boo ma laajee ci nan laay fii nii à la boutique dama ciy sawar mhm. ku ne xam ne ne jaay bari na bagage bari na waaye bari na te wuute itam mhm. kenn naxatul kenn donc sur ce na ñëpp ñëw ñu xool bagage yi fii nag moom dañuy def en ligne dañuy def en ligne bu la neexee nga toog fi nga toog contacter ñu sur suñu ay numéro mhm. am nañ numéro fixe mhm. comme am nañ aussi numéro WhatsApp mhm. donc yow yaay xool tànn sa bu la neex la am nañ tamit compte Facebook donc yow yaay xool tànn ak Instagram bien sûr voilà ak TikTok donc yow yaay xool tànn sa bu la neex la foo foo dugg rek boo ñu commandé ñu yebal la la suñu livreur mu livrer la selon di nga bëgg selon bagage bi ni mu demee voilà macha allah loolu loolu loolu loolu c' est bien. dañuy def en ligne dañuy def sur place. sur place ndax soo xoolee tey nee naa léegi euh, comment dire jënd beeg jaay bi en en général si réseaux sociaux yi sax lay gën a doxee. waaw ndax léegi les les gens n'ont plus le temps de se déplacer. vraiment ndax ñi dañuy dem liggéeyi maanaam déplacement yi dañuy xaw a sonal donc ñoom li ñuy préféré mooy. toog fi ñu toog nga envoyé leen bagage bi. Mhm. ñu ne la taay tel laay sol. Mhm. nga indil leen. dem defal seen livraison. voilà donc euh, mhm. dañuy profité joxe waale numéro numéro WhatsApp bi 77 831 82 30. et puis on n'est pas loin on est juste ah, de la Sonadis derrière pharmacie Astel. donc euh, adresse bi yomb xam la et puis c'est accessible. pour ñu yor oto ak ñëpp. donc foo taxaw ne Kër Ndaanaan laa jëm rek defe naa donc même boo toogee fi nga toog nga contacter ñu via la via euh, genre Facebook wala dara boo ma laajee loo bëgg man naa la ko yónnee. dëgg la am na solo euh, à part ça aussi seen bagage par exemple Kër Ndaanaan ku nekk xam na ne marque italienne day jaay. Mhm. donc bagage marque italienne mënoo commandé comme nii léegi nii suba ñu la bagage bi day ñëw bu fekkee dafa jeex ci boutique bi donc seen bagage yi naka lay ñëw par exemple soo amee benn stock su bagage ñëwee jógee Italie ñëw euh, ngeen am benn benn stock marchandise bagage boo war a jaay ci boutique bi. benn instant comme bagage naka lay ñëwee par ñaata lay toog di ñëw comme noonu daal. Ah, mais loolu loolu en fait dépendrewul ci ci comme par exemple bagage ni war a ñëwee. Mm-hmm. comme par exemple tey jii boo soxlaa gis dara mu jeex fii ci boutique bi boo ma contacter léegi suma ma contacter suñu suñu boss mm-hmm. monsieur Diack d'ailleurs ñu ngi koy nuyu de passage. voilà moom ci saa si mën na la ko yebal ci GP mu ñëw mm, donc amul amul amul arrêt. amul arrêt ñun noonu la ñuy liggéeyee. loo bëgg même bu fi amulee sax certes nag dañuy indi indi genre bagage mhm. dañuy indi masse dañuy indi lu lu lu bari mhm. mais bu fekkee dem nga ba masse voilà différentes tailles les tailles mhm. varient du plus petit au plus grand dañuy def ba appuccu comme ni may waxee voilà <laughs> <laughs> dañuy def ba appuccu donc bu bu bagage bi jeexee boo ma boo ma ne lii laa bëgg rek amul amul xaar automatiquement dama la koy yónnee voilà macha allah loolu tamit am na solo ndax nee naa leen luy nit jaay rek ku ci nekk war nga ci war a mën a gis sa bopp ne man wala man dama pata ngeen baal ma ci kàddu yi wala naan man dama gàtt wala dama njool maanaam taay boo mënti am soo ñëwee ko naan shop ci ñun mhm. dañuy def relation entre qualité prix donc prix yi à chaque fois que tamit ku ne xam na fi ñu nekk tëngeej lañ nekk bidon soriwul ak bidon ville dëgg ngeen baal ma ci euh, donc mhm. soriwul ak bidon ville donc sur ce dañuy dañuy casser yi ku nekk mën ci am voilà parce que doole yamul aussi doole yamul te comme ñun euh, cent pour cent tëngeej lañ bokk mhm. te jàkk ku ne xam na ne moom lépp day voilà dafa bëgg day contribuer ci mm-hmm. ci ci développement Rufisque donc su mm-hmm. ci loolu day day day day wàññi prix yi mm-hmm. ku ci nekk mën ci am li nga bëgg doo jéggaani fenn ku ne gis sa bopp voilà loolu am solo la PDG la la la PDG Keur Ndanane Shop di di def nee leen su ngeen ko xoolee bu gisee xam ne li muy sañse li muy sañse moom moom lay jaay li muy moom lay jaay macha allah loolu am solo la à part ça aussi euh, à part euh, aussi parce ñu waxtaan comme bi moom liggéey la clientèle bi des liggéey bi ndax yaa ngi yéen a ngi ciy gis seen bopp. waaw jaay macha allah clientèle ñu ngi mm, eh, bi waa alhamdulilah ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. Mm. waaye dafay am ay nit yoo xamante ne si ay nitu bopp lañ. sa ay nitu bopp lañ parce que tellement ko dañuy xam yow li ngay jaay. qualité la qualité la mm-hmm. ak euh, rare bi muy rare. Mm-hmm. ak euh, genre classe bi muy àndal. donc euh, ñooñu. mention spéciale rek lay doon ci ñoom ci ñoom mais nag n'empêche aussi dina am ñoo xamante ne genre dañuy comme comme day dem de bouche à l'oreille voilà kër ndaanaan laa jëndee kër ndaanaan qualité la après ñu ñëw voilà voilà voilà loolu tamit macha allah lu am solo la loolu moom nee naa leen ni ma ko waxee rek euh, bokk téléspectateur ndaanaan ko waxee euh, Mariam waxee moom mi nga xam ne moom mooy la gérante de Kër Ndaanaan Shop comme ni mu ko waxee nee na gis ngeen bagage bi ñuy maanaam clientèle yi ñu ñëw allah ndax su ngeen xoolee ne ci boutique bi xam ne ne yëfu coomo amu fi nee naa leen fi yëfu ndaanaan rek. arrivage daal bu ñëwee ku yéex ñàkk ku yéex ñàkk ku yéex ñàkk ndax waxuma dara mais man man man li ma gën a neex ci boutique mooy man qualité bi ñuy jaay man man waxuma sax qualité bi ba pare ak raar man dama bëgg lu raar waaw ku ne xam na ni man dama bëgg lu raar loolu fii lay amee nee leen muy góor muy jigéen daw leen ngeen ñëw fii ci boutique kër Ndaanaan shop nga habillé leen lu rafet lu chic te classe léegi yow ma lay bàyyi soo amee koy remercier nga remercier ko soo amee koo koo koo bëgg a ah, sànni <laughs> um. kay bon remerciement bi du sori du bari. juste je vous remercie yéen ñi équipe Keur TV genre parce que ay jeunes ngeen mm-hmm. mais yéen a ngi góorgóorlu macha allah mm-hmm. lu ñu sumb tamit ngeen bokk ci. voilà donc je vous remercie mm-hmm. mais aussi tamit. Euh, bukk bu lekkee alam na ko gërëma coy tey jii su ma mënee toog fii ba mën a toog ci wax télé wax wax di mhm. sama boutique c'est grâce à notre PDG wax dëgg yàlla ma jaag astak Awa Ndiaye gën rek la def bam ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu def ñu comme ay raqam def ñu comme ay sëram yënduwul xoolul lijjantiwul mhm. li nga selon li nga ci defee rek baax na baax na mhm. yow dana naan yow fii sa boutique la c'est-à-dire il te met à l'aise en fait. day mel ni yow sa yëfu bopp voilà du ma xatal du xataluma ci dara je me mm-hmm. sens pas frustrée mm-hmm. heure bu man c'est pas évident en étant marié di yenn heure yi mm-hmm. mais il est tellement compréhensif mm-hmm. amul mm-hmm. benn problème wax dëgg yàlla lu ko waaye waxal donc koo sosal ma jaag astak Awa Ndiaye ñu lay gërëm kontaan nañ kontaan nañ bu baax a baax a baax di la ñaanal rek yàlla yokk jàmb ji yokk xéewal bi yokk sutura bi yokk man gi amiin yaa rabbi yokku mën gi lool lool lool lool lool lool lool bàyyi laak euh, suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu mag <laughs> suñu xarit uh-huh. moom tamit yàqu ci dara madame Diack personne madame Diaga oh, dëgg yàlla elle est mm. adorable nit ku baax la nit ku baax la macha allah bu ñëwee imaginel c'est pas évident nga ñëw Sénégal ñëw di ma jàppale ne ma kaa ñu nettoyé ñëw toog di yéen doog man mësul am mësul mhm, am boo ñëwee boo koy présenté sax mhm. dara naan na ma bul ma wax boss voilà donc c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde waaye tamit ah, lu rëy mbuum dee tax mhm. jaañ naar mhm. <laughs> ah di ko sant di ko gërëm rek mhm. moom euh, monsieur Diagne wax dëgg yàlla waaw parce que moom bu ma mënee mm. tey ñëw toog di présenter mm. émission c'est grâce à moom a bàyyi ma liggéey ji jaañ naaru buur surtout jëmmi fare na mbay bi parce que nga compréhensif pour mën a accepter sa jabar c'est ça c'est ça ngay war a xëy di bàyyi sa jabar muy xëy di mm. génn di ñëw à certaines te doo ci wax doo ci nga bàyyi ko ak confiance boobu du wax dara macha allah wax dëgg yàlla kon mm-hmm. donc daal ñu ngi gërëm monsieur Diack mm-hmm. gërëm madame Diack mm-hmm. gërëm monsieur Diagne aussi ak euh, suñu clientèle bi waaw voilà <laughs> donc mention spéciale aussi à vous wax dëgg yàlla madame Diop bu ñu xamante ba léegi yàq ko ci dara mi ngi rafet boobu ba léegi allez merci beaucoup donc <laughs> disons à la prochaine incha allah mhm. très bientôt ci beneen arrivage. incha allah mbokki téléspectateur Kër Ndanane TV gis ngeen ko tey xanaa tey xanaa tey ngeen xanaa tey jommi ngeen nee leen Kër Ndanane shop lañ nekkoon tey gis ngeen li ñu leen fi won lépp nee naa leen jaratul ngeen dem ba Dakar jaratul ngeen dugg avion wala di yónnee ay GP ñu dem Italie marque italienne yaa ngi fi. nee naa leen lu nit di mën a wër ci dëkk bi rek soo ñëwee biir Kër Ndanane Show donc fi fekk na gis ngeen ko wan nañ leen ko te incha allah dinañ ñëwaat wan leen yeneen ak yeneen su ko defee mbokk téléspectateurs yi dama koy waxee comme ni ma ko waxee woon ci début bi nee naa leen euh, émission mode tendance beauté fii lay xewee ci waa kër TV donc nee leen képp ku bëgg ku la fésal maanaam yaa xam da ngay jaay tissu yaa xam dangay jaay daal yaa xam tailleur nga yaa xam coiffeuse nga coiffeur sax ñëpp ci lañ bokk macha allah contacté boobu ngeen ñëw ñu defaral leen émission bi daal di leen gën a fésal macha pour ñu leen xamuloon gën la xam su ko defee damay daal di remercier rek borom kër gi mu ma fay jóge te du ma remercier ndax moo waral euh, euh, bu baax a baax nag gis nañ sa liggéey bu am solo bi nga def si diaspora bi macha allah di nuyu madame aussi macha allah ne boobu ba léegi yéen a ngi fi leen di nuyu di leen remercier bu baax a baax di seen liggéey bu am solo bi ngeen di def macha allah leen grâce à vous a tax ma mën a belli nii ñun sax ñu belli image yi nice <laughs> rafet ba ñëpp mën ñu seetaan nee naa leen su chaîne yi leeree Kër Ndaanaan TV la su son yi neexee Kër Ndaanaan TV la su yëree rafetee ah su yëree rafetee Kër Ndaanaan shop la <laughs> donc kon n'hésitez pas ngeen di wër daw leen ngeen ñëw fi ngeen koy fekk bu ko defee dama leen di bàyyi ba beneen incha allah contacté ñu suñu numéro téléphone bi aussi joxe leen numéro joxe waatal ba numéro téléphone bi voilà suñu suñu numéro boo ñu bëggee contacter on est sur Facebook mm-hmm. Instagram ak TikTok donc mais boo ñu bëggee euh, kii jot sur WhatsApp c' est 77 831 82 30 foo nekk boo mu woowee ma livré la. sans souci noo tooy ma jaay la. bu rafetee maa koy jaay bu wóoree maa koy jaay. loolu am na koy jaay. fii lay mu ngi noonu comme ni mu ko waxee fii lay xewee Kër Ndaanaan shop Kër Ndaanaan shop dinaa leen Kër Ndaanaan fii la lépp di xewee ñun ay ndaanaan rek la ñuy lijjanti donc maa lay remercier ma sister de de de passage. macha allah si accueil bi kontaan naa ci accueil bi comme ni nga ko waxee dara ñaawul macha allah di ñaan yàlla ñu gisante waat ci beneen ci jàmm ak salaam. merci beaucoup mbokk naa leen mbokk téléspectateur Ndandane TV.